ñi ngi leen di nuyu fii ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji euh, ci teewaayu kilifa yi di njabootuk Cheikhul Khadim gi nga xamante ni euh, teew nañ ci jataay bi incha allah di ngeen dégg ñu yëkkati ay kàddu mu jëm ci ndigal loo xamante ni mi ngi bàyyikoo ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général di murit muy bis bu am solo jëm ci tàmbalik liggéey bi nga xamante ni moo jëm ci mu jàmm Cheikh Ahmadul Khadim di complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi nga xam ne ay at ngi ni ñu dooroon léggéey bi altine juróom-benni fan ci weeru février dëppoo gi itam fukki fan ak juróom ci weer wi nga xamante ne mooy weeru rajab bii ñu nekk incha allah ci la sëriñ bi fas yéene ñu door liggéey boobu. loolu moo waral kilifa yu tedd yi yëpp ngeen gis ñu teew te sëriñ bi féetale leen liggéey bi ak li nga xamante ne moo ci aju kon dinañu déglu seeni kàddu. ñu leeral ñu ni nga xamante ni bis bi ni lay tëddee ak ni nga xamante ni la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha bëggee ak mbooleem luñ ci war a xam ci ay xabaar ak itam luy tax ñu mën a xam lan moo war a doon suñ taxawaay ci bis bi ñuy fàttali ko mu doon juróom-benni fan ci weeru février atum deux mille vingt dëppoo itam fukki fan ak juróom ci weeru rajab di ndeyu koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ati gàddaay gi. bismillahi rahmaani الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yëpp ak bokk taalibe murit yëpp ak bokki réew mi yëpp ñu ngi yëkkat suñu kàddu ci turu ak Cheikh mi fi jëmmi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf di ñaan yàlla suñu borom mu dolli aw fanam dolli ak wéram dolli kàttanam ba mu mën a mottali mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci lislaam te lépp di liggéey Sëriñ Tuubaa kàddu yi nag kàddu yi yëgle ak fàttali ak xamle rek la mu doon kàddu yu gàtt yu gàtt kon sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu leen sant leen gërëm leen li jëm ci kàddu yi rek kàddu yi nag damay ubbi rek bu ma noppee Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké ibn Cheikh Mouhamadou Fadil dana leeral ci lu gën a yaatu bis bi nga xam ne ci lañ jëm ak taxawaay bañ ca war def ak niñ ko war a doxale lépp dana ko leeral moom bi nga xam ne li ñu yëgle lépp ci loo xam ko sëriñ bi teg moo ànd ko ñu ko àndal te ñi ci jiitu di daa daaira Rawdu Rayaahiin ak mboolem ñeen ci jàppale bu noppee Serigne Youssou Diop mi nga xam ne mooy jëwriñ daayira Hizbut Tarqiyyah bu noppee moom bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa joxe ndigal ne lépp lu ñuy liggéey sëriñ Touba nañ leen ci jiite ñu ne ca bopp ba kon taxawaay bis bii ñu war ci am taxawaay bu rëy ak ñi ko war a àndal mooy itam dana jotli kàddu yu seere ak kàddu yu leer la kon bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi nuyu ñëpp. di ñaanal ñëpp kàddu yi fekk nañ ci jàmm kàddu yi nag nee la ci jëkk mooy sant yàlla ci yàlla mi nga xam ne mooy def di dindi ni mu koy faral di waxe te lii nga xam ne mooy bis bi jëm di bis bu ñor lool kon li muy jëkk sant yàlla rek di sant Serigne Touba mooy ci fekkeloo gi ko suñ borom fekkeloo ndax muy somb wu rëy bii liggéey wu bii nga xam ne manis naa wax ne moo desoon ci naal yi fi Serigne Touba bàyyi woon yàlla def nee na ci moom ci njortam dafa amoon yéene tàmbali ko rek waaye xamutoon wan waxtu lay àgg ak ku koy àggale kon nag yàlla suñ borom ci kàttanam def liggéey bi dem ba li ci ëpp àgg ndax lépp nag sotteegut ndax université sax xam ngeen ne du àgg. waaye li ci ëpp àgg ba wari sa tàmbali liggéey bi mu bokk fas ko yéene tàmbali nag ci weeru rajo bii nga xam ne ñu ngi tey ci bisu bu njëkk bi te mooy bis bu màgg di weeru tedd woo xam ne xam ngeen ne Serigne Touba fonkoon lool ba dëkk bi tuba siiw na sax ne ci bisu tey bii la ko sanc euh, njabootam gépp itam bàyyi woon ko xel ak Cheikh Mahodou Fall itam gane ci àdduna muy jineen feex kon bis boobu yi nga xam ne mooy altine tey ji bu delsee ba delsiwaat war a toll la 6 février ci la sëriñ bi di ñëw teew ubbi ko njëkk a dalal ki nga xam ne moo fas yéene njëkk a tàmbali ci daara ji kon bisu la boo xam ne bisu ndam la bisu sant yàlla la waaye bisu ndam la ci yoon murit bisu puukare la ndax lii nga xam ne tey yàlla def na moom la ñu ubbi muy daare Cheikhul Khadim ju mag ji nga xam ne daara la joo xam ne xam ngeen ne ni ko sëriñ Ahmadou Bari yi di waxee romb na université waaye modèle éducatif la boo xam ne matale na noonu la koy faral di fàttali waxtu ne mu doonoon somb bu rëy nag woo xam ne euh, sëriñ Alhaji Mbacke Bousso ci leetaram boobu leeral na ci mébét yi nga xam ne Serigne Touba yéene woon na ko te yàlla def jotu koo def ba ñibbisi Touba ba ci jëkk di jumaay Touba ak yoonu Màkka nga xam ne ñëpp xamoon nañ ne la ko gàllankoor jumaa ji itam ñim fi bàyyi woon tam lay ci Cheikh Mouhamadou Moustapha def ci jom ak yitte tàmbali ko ci kàttanu suñu borom itam moom mot mate ci loxol Cheikh Mouhamadou Fadil ñi leen woote ginnaaw bi ñëpp kenn ku ci ne def na ca yitte jam ca war a def Cheikh Abdoul Ahad xam ngeen ni yokk jumaa ji moo ko ci dolliwaat kon loolu lépp yàlla suñ boom matal na yéen ya yoonu Mbàkke bi itam xam ngeen ne eh, maam Cheikh Anta àndoon na ak Serigne Mbacke Bousso ak Cheikh Mamadou Fadil ngir amoon yéene mottali Serigne bi yéeneem jooju nga xam ne bokkoon na ci ponk lislaam yi yàlla def mu amoon gàllankoor bu mënu koo def kon ba ci desaatoon rek mooy binaau madrasatin takunu rihlatu sénégali ilayha fi l ulumi al arabiyati wa adatiha muy daara joo ne fune ne la di bàyyi ñëw ngir di fi jàng si kon muy sombuuri boo xam ne yàlla suñu borom def na ñoom jabaru Sëriñ Tuubaa amoon yéene taxawal ko ba xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Moustapha daara ji yéene woon na ko ba moo daan jàngaleel boppam am na ci si sëñ bi ñoo xam moo leen jàngal ak Cheikh Mouhamadou Fadil itam bi mu ubbee jumaay Tuuba ji xam ngeen ne daara ji mu fa ubbi woon mën naa ne jataay bi bari na ci ñoo xam kon loolu lépp ci jëmmal mébét ba la ak Cheikh Abdoul Ahad nag yàlla def na liggéey bii Cheikh Mouhamadou Mountakha di war a tàmbali tey naaloo ak e, tàmbali liggéey bi ci moom las tàmbali woon mu miire lu mat daanaka lu jege kilomètre muy sombu rëy wax ne waxoon na ne waxoon na lam ci jubloon muy daara ju mag ne daris na fa jàngale xam-xamu diine dafa jàngale ak taalibe kon mooy li ñu defaat tey ginnaaw mi tam Cheikh Abdoul Khadir Serigne Cheikh mi ab xalifaam wax na ma ca làmmiñam ne ma bi mu koy tàggu di dem umra neewoon na ko samay yitte jëpp maa ngi ko bëgg jëme ci daara ji nga xam ne ko baax ki amoon na yéene ja ma fexe ba taxawalal ko moom ginnaaw mi tam Cheikh Salif Mbacké xam ngeen ne ci bi mu nekkee Serigne Touba bokkoon na ci naal yi mu njëkkoon a def ba yàlla def mu liggéeyoon ko ba li ci ëppoon àgg bañ ubbi ko mu tegoon ko ci loxol ak njabootam di Serigne Moustapha Mbacke Saliou doomam ak ñaari rakam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke euh, Serigne Souhaïbou ak Serigne Djili Mbacke Cheikh Abdoul Ahad kon yooyu yëpp ay naar la woon yoo xam ne ñi leen jëkk defoon nañ ko seen ginnaaw itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke mi nga xam ne moo njëkk wuutu Serigne bi ci ay xam ngeen ne ci waxtaan yi njëkkoon wax bokk na bokk na ca yéenam ak Cheikh Sidi Moustapha itam yàlla def na mu xalaatoon ko ba njëkkoon a defar panaa yi ba yónnee woon ma ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mii teg ko ci loxoom ne ko jëbbalaan na ko lépp kon mel na ne yëgoon na ne naa lu ci loxoom lay sottee kon nag moom mii fi ne tey yàlla ko fi yàlla yàggal te gën doole ak wéram mu am tawféex yi nag kon mottali seen naal yooyu yëpp ba yàlla def lépp nekk waaqia kon loolu ak cant gu mag la moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ne bis bii nga xam ne ci lañ ko war a ubbi neen bis bu ko gën a màgg ci moom ci kaw suuf kon bis bu rëy bis la boo xam ne kon yéene ju a ay yitte ju kawe la waaye nag ngir xam xeeru taalib yi ak xatu jamono tax na mu wax ne ndax bis bi dafa nekk ci diggante ñaari xew yu xat yu màgg ci yoon wurit mooy màggalu Poroxaan ak màggalu Kazu kon mu wax ne diggante boobu kon woote xëju fi kon woote bi woote yégle la ngir ñëpp xam ne liggéey bi tàmbali na waaye ñi jege rek xëj na te am euh, féexug mën a ñëw mën nañ ci ñëw waaye nag yéglewu ko ngir bëgg taal bi yëpp ñëw ndax neen loolu bu amee màggalu Tuubaa lay doonaat te diggante ñaari màggal yi xew-xew bu dee loolu fi kon loolu na ko ñëpp xamee loolu waaye nag ñëpp am yéene rek bis bi xam na bis la boo xam ne daal bis bu ko gën a màgg coono murit amut moom mi fi nekk Sëriñ na bis bu ko gën a rëcc na ko ñëpp waajal te fonk ko te xam ne liggéey bi tàmbali na ba sore ba agsi fii waaye kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp loolu soññ na ma ko ay yoon na naa ko santal ñi nga xam ne ñoom la bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp bàyyiwul kenn. ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo laxasaay woon gàddaay ñëw topp sëriñ bi ànd ak moom liggéey bi ak mboolem taalibe sëriñ Tuubaa nag bayul kenn xam naa suñu axul bëri mooy gën a dugg ci tafasir waaye sëriñ bi nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp ndax nee na xam na ne liggéey bi fu ñu ko wootee xat na jamono xat na waaye def nañ luñ mën ak luñ mënut ba liggéey bi seen tuutoon mukk ne nëgg dana jeg ak si bi kon nag loolu. neen mi ngi ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp di xamle yi rek ne euh, wàcc amut noflaay amut ndax nee na naa soññ bokk taalib yëpp ñu xam ne liggéey bi bu demee ba toll fii itam buñ demoon ba ne àgg na sax ba sotti coleetit ñaan ña nañ sóoraale ne li ci kanam mooy ëpp fuuf li nga xam ne weesu nañ la ko yor ci ña fay ña fay nekk ak ña fay jàngal ak ña fay dëkk kon sarsu rëy la te loolu nag taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp nañ xam ne ñun ñëpp ci suñu suñu loos la kon na ko ñëpp bàyyi xel nga xam ne liggéey la boo xam ne doo tàmbali kon donte nag ñi nga xam ne ñooy nguuru Sénégal am na lu leen ci war xam naa Sëriñ Ahmadu Badu dana ci gay dellusiwaat ndax euh, daara ju toll nii ak liggéey bu toll nii ci dëkk bi nga xam ne école publique amu fi kon jaadu na ñoom it ñu xam ne am na lu leen war ci ñiy jàng. ñi war a jàng ci dëkk kon ñoom itam luñ ci def rek dañ xam ne seen warteef la ndax Touba li fi dëkk li dëkk mën na ñaari millions nit ñaari millions nit yoo xam ne nag amul école publique kon jàpp naa ne état bi war naa xoolaat donte fii Touba day dëkk boo xam ne bokkut ak yeneen dëkk yi war nañoo xool nu ñuy fexe ba sóoraale ko ci ñoo xam ne li leen fooroo ci jàngalekat ak dëkkali ay ñi jàng bari kon nag bu fekkente ne ni dëkk bi tëddee tax na mënuñ ko def noonu tam war ñoo xam ne kon Touba buñ koy natt université Touba warut a mën a bokk université yi Sénégal kon loolu itam ñoo ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te eh, comme amoon na yéene moom mi jiiti réew mi ne da koy defar sëriñ bi waxoon ko ne ko tabax tabax bi na ko bàyyi taalibe suñu Touba yi ndax mën nañ ko. lam ko leneen lim ci war a def na kon ñu ko koy fàttaliwaat di ko fàttali ñi nga xam ne joxoon na leen ndigal ci ñu war koo def. ñoom itam ñu góorgóorlu ci ba def ci yitte ngir xam ne lii kat mooy sasu Cheikh Amadou Mountakha neewoon na awma ñaar yitte awma ñetti yitte jë wenn somb la amu wi kon nag képp ku koy dimbale rek war nga xam ne lii mooy li jëkk ci li ko gën a ñor kon nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te rafet njort rek xam ne taalib yi moom de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ca waxtaanam mu mujj mooy xam ne xam le ne euh, xol yu nangu moo mbay mu nangu xol yu nangu gën a wóor te xol yi nangul na Sëriñ Tuubaa duduñ gàntal ndax xam ngeen ne fii ko sëriñ bi wootee keneen ku ko woote woon ci li fi xew muy corona bi fi xew ak crise bi am ci àdduna xam ngeen ne njàmbaaru taalibe Sëriñ Tuubaa moo tax mu kon nag la ko indi ba fii rek am nañ yàqit ci ne kana ci kanam moo ko yóbbu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil anbiyaai wa mawlana muhammadin wa ala wa ashaabi ajmain wa rahmatullahi wa barakaatu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci ab siyaar ak ñaan jëmale ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi tamay ko wér ba mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën ko def nu ko bëggee te naandu ak moom di di ko sant di sant borom bi subhaanahu di sant cheikhuna al xadim radiallahu anhu waaye di sant cheikh muhammadul muntaxa mi nu boole ci liggéey bu mag bii waaye di ko santle moom cheikhuna al xadim radiallahu anhu di am mbégte mu rëy ci jataay bii ci barab bu tedd bii di kër cheikhuna al xadim anhu waaye ci bis bu tedd bii ci weer wu tedd wii nga xam mooy benn panub rajab ni ko sëriñ bi waxee léegi rajabul fard ku ne xam ni mu toll ci lislaam waaye ci weer woo xam ne itam ci la al isra wal mi'raj xewe woon nga xam ne kéemaan gi gën a màgg ci lislaam ci weer wi la amee woon nga ji gën a màgg ci lislaam borom bi subhaanahu wa defal ko ab jaamam muy sallallahu alayhi wa ci weer wi la amee woon waaye secret wala mën nañu wax ne waxtaan wi gën a màgg yu gën a mën a masa am diggante borom bi ak jaamam muy sallallahu alayhi sallam ci la amoon fa awxaa ila abdihi ma awxaa jege gi nga xam ne ab jaam gën mas na koo jege boromam subhanahu wa taala ci la amee woon fa kaana xaaba qawsayni aw adna kon mu doon lu ama am solo ñu di ci tàmbali nag loo xam ne mooy jàngukaayu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu bii nga xam ne ni ko sëriñ bi waxee moo doonoon dafa bokkoon ci li nga xam ne sëriñ bi mën nañu wax ne mébétoon na ko waaye borom bi subhaanahu wa taala itam defaloon ko ko ba noppi mu bind ko wax ne sunu borom defal na ma jàngukaay bi noonu ko sëriñ bi melale bépp xam-xam am njëriñ ñu mën a ñëw di ko fi jàng si waaye képp ku bëgg a jàng mën ñëw mën a ñëw jàng si fi ba yaatalaat ko ba ñëpp mën cee jot ni ko sëriñ bi waxee it mboolem ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi ko ne fa nga ci tollool fa ci jamono toll def nga ci loola Cheikh Mouhamadul Mountakha bi mu ñëwee ne benn yitte bii am bi mu ko yëkkatee nag ñëpp ànd ko ak moom kenn ku nekk rek sa kem kattan nga ànd ko ak moom ñi nga xam ne dañoo jëm ci wàllu jàng ak jàngale am tawféex yi jàpp ca liggéey ba waajal ko waajtaay woo xam ne ni nu koy waxee daara lañ koy tuddee daara Cheikhul Khadim moo ëmb lépp université Touba ngir barkeeloo ko ci kàddu Cheikh Abdoulaye Al Ahad yu tedd yam waxoon ne damay defalal sëriñ bi ab université waaye mënees na ko tekkee ci jamono jiitam itam modèle wala système éducatif wala manhaj tarbawi bu cheikhuna alxadim radiallahu anhu te boobu mooy boobu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax sëriñ bi ci kàddoom yu tedd yu njëkkee dafa waxoon ne damaa bëgg jàngukaay boo xam ne dafay dal ci kii dafay dafay tàmbale ci kii dal baasin ba ci njobaxtan la loolu moo tax ñu tudde ko manhaj génn ci nag mboolem xeeti jàng yi nga xam ne dañoo am njariñ waaye tàmbalee nag ci li nga xam ne mooy ndàmmal xam-xam mooy nday xam-xam yi moo ëmb xam-xam yëpp mooy alxuraanul karim te mooy alali sëriñ bi mooy léppam sëriñ bee ko moom népp nu ñu moomee nit mu dagan wax népp nu ñu nit di moomee mbir mu dagan ko wax na ne moomee na ne alxuraanul karim malaktuhu hadiyatan wa sadaqa wa thamanan wa li yudimu nafaqa sëriñ bi nag wax ne bis bi ni ko Cheikh Ahmadul Bachir waxee noonu la toll ci moom li ñu fas yéenee tàmbali nag mooy ñeenti ñeenti xaaj ci jàngukaay bi bi si njëkk mooy alquranul karim ni ñu ko waxee bi si topp mooy njàngum majalis mi nga xam ne ku ne xam na ne fii ci dëkk bi loolu moo fi sàmm diine ji wala ci réew mi sax laay wax ba mu yegg si fii mooy tax nu xam alquranul karim ni ñu koy jëfandikoo waaye nag na ko sëriñ bi daan jàngalee ak ñam jàngaloon nañ doon jàngalee noonu lañ ciy jàngalee waaye tollale koog fi nga xam ne fi la jamono toll ba tey bi si topp mooy kullee dirasatil islamiyya bi nga xam ne moom itam lépp lu ñuy jàng ci njàngum lislaam mu kawe dañ ko fay jàng waaye nag dañ ko dëppale nag ak njàngalem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la nu fi bàyyil te sàmm loonu ko teg ci loo xam ne kenn xam ku ne xam ne ne mënees koo ñàkk muy wér gu moom itam ñu tàmbali fa jàngukaay boo xam ne dañ fay jàngale wàllu wér gu waaye xool nag li nga xam ne moom la dëkk bi soxla région bi gën ko soxla réew mi gën ko soxla muy yéeg di jëm ba ci kaw loolu lañ fa yéene tàmbali njàng mi muy wéy nag ku ne xam na ne alhamdulilah bi ko sëñ bi waxee tàmbali waxee ni ma ko waxee ñii yëngatu ci wàllu xam-xam ñëw nañ waaye ñi ngi yëngatu ci wàllu xalaat ñëw nañ ci àdduna bi yëpp rawatina biir réew mi waaye ñi nga xam ne itam dañoo jël seenu ñaq di ko jox yàlla jaarale ko cheikhul xadim tam wóor leen ne denc bu dul yàqu la ñooñu itam ñëw nañ moo ko yegsil fii yoonu murit luñ mas a def ci loolu lañ ko def tàmbalee ci ja jumaay njaareem ñëw ci raay bi ñëw ci jumaay ji daari kaamil Masaalikul Jinaan ni ko sëriñ bi waxee léegi waaye semb wi nga xam ne nag bi ko sëriñ bi yëkkati fi jamono toll ñu bari seeni i koppar jàppoon nañ ne denc rek a war ak di ko koppar di di ko di ko sakkanal waaye murid yi nag daa ne booba lañ gën a sóobu ñoom gën a jaayante fas yéene liggéeyu sëriñ bi du taxaw ñaari at yi gën a metti ci àdduna bi ak ci Sénégal ci la liggéey bi gën a doxe te lépp murid yee ko def defal ko seriñ bi kenn da nga ciy gis jëf yoo xam ne sax da ngay xam ne lii moom moom moom kéemaanu kéemaanu kéemaanu sëriñ Tuubaa rek la sëriñ bi ni mu ko waxee woon wax ne moom benn yiti bii la am lu ko waaye ma jox liggéey bi rek la jàpp ne moo ci yàlla yàlla xanaa lim ci yëkkati di ko dimbale jaam yi te noon la ñu waxoon ci njëlbeen ga ñaari ñaari yëf rek a fi am liggéeyub Serigne Touba bi ak dimbale jaam loolu defe naa ku ne mën na koo seede nga xam ne kon ku ca defoon saw ñaq lu mu lu mën a toll rek bu ko xeeb waaye lu mu bari bari tam bu ko naw xam ne borom bi boo koy lebal na nga tollule ca lam la dénk lam la may ca nga koy lebal waaye buy fay moom nam toll la lay fayee waaye liggéey bi sëriñ bi yéeme na liggéey bi yéeme na ñi nga xam ne dañ doon indi di yët bi ni ma ko waxee luñ ko yët mu dugal ko foofu waaye ñu ñëw nag tobbiwaat ay sas biir liggéey ba def ko def ko ci anam goo xam ne mucc na ayib ku ci ne la nga waxoon ne sëriñ bi ne moom laa la bëgg a defal ku fa ñëw xam ne jàppoon nañ ne du du du du yegg si foofu kon ñoom tam loolu dañ koy seedeel sëriñ bi seedeel ko mbooloo mi xam ne nag jàpp nañ ne bu fekkoon ne daa am lu ñu waroon a def dañ naan ful nañ lañ waroon def ñoom maanaam fu bu fekk lu warteef la woon daal romb nañ warteef fa tey nag sëñ bi daa waxoon ne damay tàmbali sama damay tàmbali liggéey bi ku dem ma dem ku demul ma dem loolu murid dañ ko dégg bu baax daal di fax topp ci moom kon nag kenn ku ci nekk nag la ca sawarte far nga ko def seriñ bi wax na ko léegi jàng ak jàngale moom ku ne xam na ne état moo ko war a def rawatina université waaye murid yi moom duñ na kenn ci ndigalul sëriñ bi sëriñ bi itam kuy def ci lu jëm ci bindee fi jàpp nañ ne ku ca ñëw moo xam muy état muy keneen moom ngay jàppale kon ñoom itam ñu ngi leen di séntu bu baax a baax ñu xam ne nag tabax yi murid yi def nañ ko waaye doxin wi nag day laaj koppar yu bare bare bari te sëriñ bi daa war def yeneen i liggéey kon jàpp nañ ne yi nga xam ne waxoon nañ ko sëriñ bi yëpp ñu ngi koy séntu waaye dafa jàmp nag dañ ko bëgg daal di am ndax kii war a jàng mënee su ko ne négal ba déwén nga soog a tàmbalee jàng ki tàmbalee jàng itam mënee su ko ne lii daa manqué da ngay toog ba fekk déwén ak ki déwén dëgg la dongay daara lañ lu baree bari mën nañ ko muñ doxe ca kem kàttan waaye nag li ñu ngi soññee daal bu baax a baax ci yi nga xam ne moom lu war am ci jàngukaay bi la ndax jàngukaayu Sénégal la jàngukaayub jullit yëpp la waaye jàngukaayub réew mi yëpp la itam ndax liñ fiy jànge bépp xam-xam bu am njëriñ dañ ko fiy jànge mooy xam-xamu diine bi lal xam-xam yëpp waaye métier yi nga xam ne réew mi da ko soxla adduna bi soxla ko loolu itam mboolem métier moo xam ne mu soxla ci dëkk bi incha allah taala des ko fay jàngale di fa tàggat ñi nga xam ne sax yoroon nañ seen i métier ca bëgg gën a xareñe ñoom itam ñoom ñëpp am nañ ci wàll kon sëriñ baa ngi yëgal ñëpp ni ko waxee ne liggéey baa ngi tàmbali incha allahu taala waaye liggéey baa ngay wéy itam bu ko defee nag képp koo xam ne rek defoon nga ci te yàlla man loolu lu ko weesu nga nga yokk ko xam ne denc bu dul yàqu la man da la si yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaa'ifahu lah wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa xayran wa a'zama ajra nga xam ne kon denc nag boo jaarale Sëriñ Tuubaa moom bàq bu tooy la rek bàq bu tooy la rek boo xam ne moom loo ca loo ca ji dana jeb bi dana meññ liggéey bi tam ni ñu ko taxawalee sëriñ bi dafa doon rek garab goo xam ne dafa am ay reen ndax Cheikh Mamadou Muntaxa dafa ñu doon wax ñaari baat mooy asala wal muasara asala bi nag mooy reen yi day saxu ci lislaam ni ko Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu jàngalee te loola mooy ni ko sallallahu alayhi wa sallam jàngalee rek dara ràmbutewul dara yonent bi sallallahu alayhi wa ah, cosaan li foofa la màgg nag waaye am ay bànqaas yu bari yu yaatu bànqaas yooyu nag day law fépp foo xam ne xam-xam bu am njariñ ma nga fa xam-xam boobee lay indi bindee fi yàlla yi jariñoo ko doomu aadama yi jariñoo ko rawatina murid yi nga xam ne daal kon njàngalem Serigne Touba lay sàmm mi nga xam ne mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye dafa tollook jamono fi jamono toll it fa fa ca lu baax toll foofa lay tàmbalee di jëm di wut lum ca yokku mu jëm ca kaw. di ko yëgal itam kilifa diine yi ci réew mi. toroq suufiya yi yu mag yëpp toroq suufiya yi nekk ci réew mi yëpp Serigne bi mi ngi leen ko yëgal. kenn ku nekk mu ngay teg loxoom yëgle bi ci ma mu jottali ko ko njabootam gépp ñu xam ne ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk di ko jégal mboolem al umma islamiyya bi yëpp nga xam ne kon ñëpp daal ñoo ko bokk. di ko yëgal itam mboolem association islamique yi nga xam ne ñoo nekk biir senegal ndax daara Cheikhul Khadim la te mooy daara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñun ñëpp ñoo bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon ñu ngi ñaan suñu borom ñu fekkee bis bi ci jàmm ak salaam bàyyi ñu fi Cheikh Mouhamadul Mountakha nu santaat ko nag santaat ko. mboolem taalibe murid di sant ko kañ ko jaajëfal ko gërëm ko ci liggéey bii mu yëkkatil sëriñ bi te boole nu ci yaatal ko it ba ñëpp mën cee bokk kenn ku nekk mën cee dugal sa loxo ak noo ko mënee moo xam xalaat la moo xam ñaq la moo xam jëf la moo xam alal la waaye loolu lépp rek ni mu ko waxee denc bu dul yàqu la boo xam ne ku dugal ci sëriñ bi nga xam ne sunu borom daa nangu léppam na la wóor ne fa ko denc du yàqu te fam la koy fayee dara du fa ñu ngi sant bu baax di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di sant sunu borom bu wér ci li nga xam ne tawféex rek la waaye doonul lu ab jaam mën boppam. sunu kilifa yu tedd yi kàddu yu ñuy jottali nun dong yëpp dégg nañ ko nun nag lii sunu wàll mooy wàllu organisation moo ñu ci doonal dara topp ci ginnaaw sunu kilifa yi. Euh, sax ci yaar rek imtisaalul awaamiri wàcc naa bul manaahi ñun dongay looloo ci suñu wàll ndax loolu mooy yëwee na lépp organisation boobu nag ñuy sant bu wér Cheikh Mamadou Bachir mi yor kàddu sëriñ bi ak sunu sëriñ bii nga xam ne euh, kàddoom yi yóbbuwaat nañu fu sori ci li mu wax ci euh, mu jàmmaaw bii nga xam ne euh, jàngukaay la boo xam ne kenn sañu ko tuddee université ndax dafa ëmbaale université ëmbaale leneen loo xam ne da xam ne sëñ Tuubaa rek ko am muy sëñ Ahmadou Badawi kàddu yooyu dafa mel ni waxaaleel nañ ko njabootu sëñ Tuubaa gépp waaye waxaaleel nañ tamit mbooleem seex yi nga xam ne ku ne xam ne ne fu sëñ Tuubaa jógee rek ñoom it dañuy topp topp ci ginnaaw ci jëf ak tamit ci soññe loolu moo àggale liggéey bi fii Cheikh Mamadou Bachir mi wax ne Hizbut Tarqiyyah ci wàllu organisation bi ndigal li ci sëriñ bi wax muy lu rëy waaye ñuy xam ne ne Hizbut Tarqiyyah moom day lu yaatu loo xam ne man gisuma dongo bu ci bokkul man ñëpp ñoo ko seq moo tax nag fi saa si li ñu daal di def mooy jóg nañu dem seeti ñi nga xam ne dañ daan ànd ak ñoom liggéey naka jekk ndax biss yu mag yi nga xam ne yoonu murit daf ko daan def yu mel ni euh, bisu xaside yi àdduna di fi daje naka jekk am na ñoo xam ne ñoo daan ànd liggéey bi ànd organisation bi defee ko noo xam ne mooy tax dara du sooxe su ma waxee loolu su ma tuddee muxaddamatul xidma ñëpp dinañ ko xam ci jumaa ji dinañ ko ànd ak ñoom ndax gani sëñ Tuubaa yi ñëw ci bis bi ay diplomate dina ci am am na ñoo xam ne ay professeur d'université la ñuy bàyyi ko bitim réew am na ñoo xam ne tamit ay délégation officielle yu ci état bi wala am na ñeneen ñoo xam ne ay kilifa la ñuy bàyyi ko yu ci gox yu fasanti ko bu ñu dikkee ni ñu leen war a accueillir ku ne xam ne ne waa Muxaddamatul Xidma am nañ ci expérience leneen lu bokkut ak loolu it ku ne xam ne ne Rawdu Rayaahiin ñoom xam nañ ne dañoo topp ci ginnaaw sëñ Axma mii di def liggéey bu sel ñoom sëñ Samb Bousso kon noog ñoom noo ngi gisee di takk di nos ngir lépp baax yamul foofu boo jëlee wilaaya ñoo ngi yëgoo ñoom ndax bis bi euh, nii sëñ Mamadou Bachir waxee yaakaar naa ne taalibe yi nañ ko diggee xel dafa taseeg ñaari xew-xew yoo xam ne diggante ñaari xew xew ñaari xew-xew yi muy màggalu poroxaan ak lii nga xam ne mooy magalu Kazu Rajab te itam boo xoolee ak weer wi ak jamono ji kon xëy na kenn mënut a wax na ne ñëpp ñëw waaye nag ku ne xam ne ne sëñ Tuubaa daraam xajul fenn kon waajtaay wi waruñu koo jëlee noo xam ne dañuy foog dañuy ñàkk foog ba tax bu mbooloo mu ñëwee duñ ko lijjanti ndax établissement recevant du public dafa laaj sécurité moo tax kon sëñ Mamadou Bassir boole nañoo gouverneur boole nañoo préfet tàmbali nañoo liggéeyandoo ak ñoom ak mboolem comité de pilotage bi ngir lépp lu ci war ci wàllu sécurité ñu def ko. ñu bëgg a xamal dongo yi itam ne dina am ay plateau plateau yi itam liñ ci jublu mooy mottali ay leeral mottali leeral yooyu dina dimbali nit ñi ñu xam ne masalan buñ nee buntu bi nga xam ne mooy buntu penku bi nañ ko jagleel gan ñi ak kilifa yi ak ñi nga xam ne am nañ ay mandarga yu ñu leen jox muy ay invitation wala yooyu loolu suñ ko waxee mbooloo mi dinañ xam ne buntu masalan gànnaar wala buntub Saalum wala buntub tamit euh, sow yooyu suñ ko xamee dong yi dinañ xam suñuy ñëw fan la duggee euh, muy yoo xam ne ay matuwaay la yoo xam ne incha allah dina amaat ay plateau yu ko gën a leeral waaye lépp dañoo bëgg mu nosu suñ ko defee dina doon ndimbal bu baax a baax a baax a baax ñuy euh, wax na it programme bi faw dinañ xam ne bis bi dafa am waxtu mise en place bi suñ nee masalan fukki waxtu la mise en place bi di tàmbali dañu xam ne onze heures incha allah lay tàmbali loolu ñiy ñëw muy juróom benn fan ci weeru février dëppook tamit fukki fan ak juróom ci weeru rajab fii ñu ne loolu ñu xam ne bis boobu kon organisation bi ci base boobu lay tegee ndax lépp balaa ñu julli tisbaar balaa ñu julli tisbaar incha allah bëgg nañu lépp mat ba mbooloo mi mën a yeewee ko leneen li ci des tam mooy euh, ñu xam ne ne gan ñi ñëw dina am loo xam ne ci wàllu protocole ak wàllu hébergement ak wàllu taxawu gan ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko fu sore rawatina ñi nga xam ne ay kilifa lañu di gani sëriñ bi loolu incha allah dinañ ko ànd ak ñañ ko daan àndal ci wàllu toppatoo leen diggante kër sëñ Tuubaa gi nekk Daaru Manaan diggante kër sëñ Tuubaa gi nekk héliport diggante kër sëñ Tuubaa gi nekk ci jumaa yi loolu lépp ay réunion la yoo xam ne ñun comité de pilotage bi dinañ ko ànd xool nu mu gën a rafetee ñu defee ko noonu lii daal mooy ay kàddu yu néew yoo xam ne la ca desaat rek mooy soññaat suñu bopp ba nga xam ne dañuy ànd ak sëriñ bi ci fonk gi mu fonk bisbi bi te xam ne loolu des na ko def ci ñëw waaye des na ko def ci teewlu fa nga ne dafa mel ni bis bi day taxaw taxawaay yi boo xam ne ci ñun mooy nafa nafaytal aza an nii wali suxta mat la bi fala budd min shukrin bi zikrin wa tajwidi nga xam ne lii day doon sunu wàllu bopp boo toogee ci sa kër sax ci sa ruum nga jàng xasida santale sëñ Muntaxa ndax loolu da dul mën a ñàkk ndax ndax ndax ndax ba sëñ Tuubaa di bind di wax ne bil Mustafa lii banaa xudduusu madrasatan bihaa yazulul azaa wal jëxlu wal kabadu kon tey jii jàmm ju waay am nañ xam ne lii moo ñu ko may euh, wér gu am nañu xam ne lii moo ñu ko may fan wu gudd wu ñu am nañ xam ne lii moo ñu ko may kon cant gi sëñ Tuubaa ko moom ñu ngi santaat suñu kilifa yi bu baax di feddiluwaat suñu laxasaay nun dongo yëpp nag